toutes et à tous asalaamaaleykum mbokkee xarit ci yéen nga xamante ne yéen a baax euh, di yëri xibaar fii ci suñu site bi la sunugal 24 point net comme ni ñu koy baaxoo defee seen émission bi ñu dippee euh, question politique de ma tey question politique de localité euh, di dalal ko nga xamante ni ràññee nañ ko lool ci géewu politique bu sot Sénégal mu ngi wuyoo ci turu Sator mbay nekk aussi si directoire AFP nekkoon fi également honorable député bu benn Bokk Yaakaar Sator di jiite ndawu parti boobu di AFP bu Sénégal Sator moom la ñuy dalal suñu émission bu tey bi euh, bala ñu def dara ñu bàyyi ko mu nekk mbokk internet yi laata ñu dugg ci waxtaan wi monsieur Euh, le ministre <laughs> maa ngi lay nuyu honorable mais dina bàyyi nga nuyu maa ngi lay fay bu baax di kontaan ci euh, vraiment waxtaan bi ñu nar a am ni di profité di leen féliciter ci li ngeen di def ci liggéey bu am solo ci wàllu communication mais également ci wàllu dëkk bi tout court ah euh, émission bi dayaa turam dafa doon tur bu am solo mm-hmm. donc maa ngi ci am contentement bu baax a baax mais aussi di nuyu internet yi may bët di ñu may nopp ci émission bi di ñaan yàlla waxtaan wi am njëriñ incha allah alors fi ñuy dooree rek mooy euh, situation politique bi nga xamante ni moom la ñu nekk di dund présentement alors c' est clair maintenant cinq candidats la ñu am ñuy dem si euh, élection présidentielle gulet Sénégal ñuy dem ci élection ñu am nombre bu nu toll maanaam nombre bu ndawee noonu bi mooy suñu onzième élection présidentielle depuis Sénégal nekk indépendance ba léegi alors ban analyse ngay def ci situation politique bi nga xamante ni ñu koy dundu mu nekk situation bi nga xamante ni gulet la. day ne Sénégal démocratie bu mag la. Mm-hmm. États-Unis ñaari candidat moo am France du ñu toll du toll peut ci cinq mm-hmm. aujourd'hui on est à cinq mm-hmm. jóge nañ fu sori di wàcc mm-hmm. peut-être dañ toll moment bi nga xam ne ñaari bloc mooy am Sénégal il faut que suñu démocratie yegg foofu élection yi benn dina gën a gaaw ñaar nit ñi dinañ mën a déglu programme yi bu baax ci télé bi parce que temps bi dina dina yokku ñett boo ñëwee ci bureau de vote yi doo taxawaalu lu yàgg et puis ñeenteel bi c'est des économies énormes parce que candidat bu nekk ñu war la jëndal oto jox la caméraman jox la preneur de son jox la journaliste bu lay topp et ça sur le budget euh, ak li nga xam ne yëpp waroon nañ ko def ci ay bulletins sur à l'échelle nationale je pense que loolu nekk na quand même une plus-value bu am solo mm-hmm. et ça il faut quand même reconnaître que c'est par le génie politique du a mm-hmm. le parrainage universel au Sénégal mm, parce que moom fàttali ne parrainage amoon na fi mm-hmm. donc du du fi lu bees mm-hmm. euh, et du doon parrainage boo xam ne grand électeurs yi rek la concerné mais defa di parrainage bu nga xam ne dafay voilà mm. dafay jël yëpp parce que bu doon grand électeurs rek xëy na sax benn candidat mooy am parce que ñun ñi tey maire yëpp mm-hmm. presque essentiel bi ñoo ko gagné euh, mais président euh, pour dans sa vision mu ne na nekk un parrainage citoyen ci nekk nga ni man kat diw mi jàpp naa war na mën a nekk candidat. Mm-hmm. mais mais ñu bëri jàpp na parrainage bi également c' était pour dindi ñu nga xamante ni ay candidats lañ ñu nga xamante ni moom bëgguloon a jàmmarloo ak ñoom sa est dire euh, façon bi ñu ko defee ñu ŋàññi ko alors donc yow lan ngay wax ces gens là ils ont mal compris euh, li nga xamante ni mooy vision président wala dañu nekk di wax lu leen neex rek. non en fait président amul mu ragal a jàmmarloo parce moom moo ko gagné donc amul amul naataango ci wàllu élection parce que li fi jaar lépp moo ko gagné. président dafa ne oui oui bien sûr ay dafa am expérience am expertise. xam bu baax dëkk bi. en si peu il a gravi tous les échelons. ci ci état bi amu fi naataango ci ñi muy bëreel benn. mais ragalul kenn. gis nga filtre. fépp la am. alors parce que il a personne. ñi nga xamante ne nii yéen ñu ngeen di wax ténor ku ci nekk yaa éliminé sa bopp parce que benn peut-être amoo parrainage yu doy wala boo amee yu doy amoo yu baax wala am nga may à partir avec la justice alors amu ci amu ci kenn ku nga xamante ne hmm. moom par son fait moo la génne ci élection yi hmm. mais dama bëgg fàttali beneen beneen aspect bu nga xam ne nekk na lu am solo gis nga champ politique dafa war a leer hmm. man su ma tey bëgg aspirer ne damay gérer dëkk bi war a set dama war a joxe ay valeur mhm. prôné ay valeur nit ñi mën ko topp mhm. dañu war sax dem ba si suñu assemblée ñu imaginer ay loi yoo xam ne mhm. homme politique boo xam ne war nga am may à partir avec la justice ci affaire u deniers publics yooyu war a too sax jiite maire yi bay jiite réew parce que nit ñu mën a xam ne àdduna noonu la tëddee deuxième chose ñun ñi ñëpp dans notre cursus académique scolaire on a eu à être à, euh, président Fosco non non non non je veux mais fépp fu ñu jaar. am na processus d' élimination boo xam ne mooy parrainage. waaw ah. booy def certificat. am na ñoo xam ne moom ah, matañu dañ leen di éliminer. waaw BFM baccalauréat ba hmm. keroog ngay def sa sa sa sa thèse. wala sa voilà donc c' est pour dire que c' est la vie même qui est ainsi conçue. Hmm. pourquoi nit ñi di ragal di dem en compétition. Hmm. nit ñu di ragal di di wane seen bopp. parce que wane sa bopp mooy euh, chaque fois il faut que nga ni ah man kat parrainage bi matal naa. wuti xaalis a gën a yomb ah Sénégal wut dem ñu lawal la cinquante millions wala cent millions nga joxe caution mm-hmm. moo gën a yomb mais fexe ba sénégalais yi jox la la légitimité bu wane ne ah ñi d' nañ pour que nga présenté wu. c' est ça le plus difficile et je crois que ñun ñëpp loolu la ñu war liggéey. justement je pense que c' une bonne idée du benn part alors mais quand je disais tantôt que il a réussi à éliminer les teneurs politiques mooy euh, pour la première fois Sénégal ñuy dem élection alors ñu gis ne ay tête yu bees rek si on peut l' ainsi ñoom ñoo nekk ay candidats ñu nga xamante ni ràññewuñ leen bu baax a baax baax ci politique en commençant par le président de la parce que ci vrai que euh, cursus bi baax na mais c'est des nouvelles têtes comme on dit et tey parti yu ah, PS PDS AFP et cetera ñu ngi dem ci élection yi nga xamante ni pour la première fois ñoom bi ñu leen créé ba léegi amuñu si candidat c'est ce que je disais tout à l'heure donc il a réussi à garder yenn euh, ténor politique yi c'est quoi ce cette stratégie là du président. donc li ma li ma bëgg a wane mooy PS mi ngi ci élection yi AFP mi ngi ci élection yi. que ñun candidat euh, ñu ngi si coalition candidat mooy Macky Sall <laughs> élection yi fi am ay coalition la ñun AFP dañ naan am coalition muy soutenir suñu candidat suñu mm. secrétaire général PS même chose mm-hmm. aujourd'hui nous sommes dans des coalitions où on soutient une autre personne qui n'est pas dans notre parti mais nous travaillons en coalition nous travaillons macro parce que ñun ñoo ànd ak président Macky Sall gagné. di assumer ay postes de responsabilité donc ce bilan là mu baax mu bon on est comptable. d' accord ça ça c' est clair. mënoo comptable dara nag ba pare wëlbatiku. jàkkaarloog président ne ko liggéeyoo fi dara wala defoo fi dara. su boobaa nit ñi dinañ wax ak yow c' est une cohérence politique. maintenant tu me parles de PDS quel PDS le est fragmenté en mille morceaux parce que tey si ñi nga xam ne ñoom la ñu retenir. Ah. peut-être on peut dire ci ëpp plus value euh, maître Mamadou Niang ci PDS. parce que je peux dire que c'est l'homme des protocoles lépp lu fi xew ci ay problème xam na ko ah, c'est l'un des hommes les plus proches de Abdoulaye Wade justement et aujourd'hui il est là sur le justement comme comme le disait benn sama invité qui dit non mais Madické warul nekk candidat parce que doit non seulement mu wax ñu il a négocié quoi pour que Karim reste en dehors du pays ak suñu xaalis donc euh, lui a facto éliminé na euh, Maître Madické ci ci ci question moi pas moi là c'est-à-dire man je juste un clin d'œil par rapport à sa formation politique d'origine parce que fii de tous qui sont là c'est le plus proche du PDS d'ailleurs d'ailleurs beaucoup de responsables du PDS ah. wax nañu dëgg na leen ñu ne ñoom Madické la ñu parrainé oui oui cela veut dire beaucoup de choses waaw mais mais ñu bëri nee nañu Madické c'est un pion de Macky Sall loolu la ñu bëri di wax man je ne le pense pas parce que tu sais un le, le président n'a pas besoin de pion mmh. parce qu'il a quelque chose de commun avec tous les autres candidats, c'est le programme. Mmh. Et il a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, c'est le bilan. le bilan. D'accord. par exemple Non, le bilan à, à tous les niveaux. Hein. Bah, parce bilan, que euh, c'est ouais, le maître de, de euh, et mais puis Est-ce que Koutabahoul dit inaugurer Oui, mais inaugurer mais voilà. puis fermer. Non, non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le, il a, il a, il a Touba. j'ai fait une heure trente sur l'autoroute et j'ai roulé à cent vingt cent vingt euh, vraiment le TR c'est non c'est une innovation le TR bi TR hmm. c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu dans le TR le, le TR c'est c'est c'est c'est c'est le train c'est c'est le rail mais également il faut pas que les gens oublient que dafa amoon ñu bëri ñoo xam ne dañu impacté. ñoo ñu nga leen di dédommager seen i kër seen i terrain seeni i usine et cetera. loolu warul a tere euh, autorail bi daw aussi. yow gisoo autorail bi benn njaga njaay yéeg ci kaw auto oh, autorail bi mais loolu Sénégal fii rek la am. <laughs> ba tax na ba tax na. il avait donné il avait pris date avec les Sénégalais. Mhm. pour janvier. Mhm. l'a dit il l'a fait. en janvier oui. les trains étaient fonctionnels les rails étaient prêts les gares sont prêts li ci des c'est quelques finitions ak quelques euh, terminal terminales yu nga xamante ne amul benn projet bu mat da ngay gis nit ku tabax këram ba pare mm. mu manqué peinture wala carreau mu dem dëkk di peinture di carreau je crois que c'est pas ça le plus important ce qui est important c'est de dire que le président nous avait promis mm. on sait que ñun ñi lu mu yàgg yàgg yàgg mm. dans tout au plus cinq six mois danañu dugg terre incha allah te bëgg naa sama premier voyage ma invité la <laughs> alors mbokk euh, xarit yi on est toujours avec monsieur le ministre Zator Mbaye honorable député comme moi je l'appelle donc nit boo xamante ni yàgg na aussi xeexal ngir askanam xeexal ngir Sénégal bi ñu nekk donc nekk ci yëngu-yëngu politique yu bëri alors tey parlons euh, carrément d' actualité politique lu nit musul woon xalaat sénégalais yu bëri pendant dix huit ans d' opposition maître Aïssata Tall Sall aujourd'hui décide de, de soutenir le candidat Macky Sall nee na après avoir euh, donc rencontré les cinq candidats il pense que profil bi gën pour mu soutenir ko c'est c'est le président Macky Sall alors aujourd'hui est-ce que vous pensez que li mu def comme moom nee na nekkul transhumance mais plutôt ah, il elle soutient euh, le candidat Macky Sall mais li mu def du transhumance transhumance. ci sa xëy na question bi moom moo ciy gën a apte pour tontu ci mais dama bëgg wax dara. Mm-hmm. on est au moment du cinq candidats. Mm-hmm. cinq man ma ni man tegal lañ ma carotte tegal ma ñambi tegal ma batañse tegal ma chou tegal ma chou-fleur ma ni man patate moo ma gënal xaw ma ci droit ñu ne ma dama transhumé parce que la non mais mais mais mais je dire une chose parmi même ces gens de l'opposition là mm. tu vas voir des gens qui vont dire urbi et orbi qui qu'ils soutiennent un candidat autre que Macky mm. alors que ñoom Macky Sall gagné moo leen ok parce que am na ñu nga xam ne ils sont sûrs que Macky Sall va cinq ans et partir. mais keneen kuñ fi fal xëy na dina def ñaari mandat te am na si ñoo xam ne dañu leen yóbbu retraite c' hypocrite au moins cette dame cette grande dame a osé dire. Mhm. man kat ci cinq lu cinq candidats ñu ma tagal. Mhm. jàpp naa ne Macky Sall est le candidat de la stabilité. Mhm. et le candidat qui assure. et le candidat justement boo xam ne Sénégal du taxaw gis nga koo fi fal. dana toog deux lay nekk. jàppal bàyyil xëccal dàqal tëjal ubbil mais le fait que mu rejoindre euh, Macky Sall est-ce que aussi c'est pas donner raison à Ousmane Tanor Dieng euh, qui qui a aujourd'hui peut-être euh, raison sur tout le monde. mais d'autres rejoindront Macky Sall. vous savez pourquoi parce que fi ñu toll nii. réew mi moo soxla le président Macky Sall pour une stabilité le Sénégal dans quelques années va être producteur de pétrole et de gaz. est-ce que jàpp nga ne dans ce tout yu là il de régime. pour nekk tasaat assemblée organiser waat élection euh, législative euh, dàq tel directeur dàq et cetera donc pour que la stabilité puisse continuer dans ce pays le meilleur choix reste le président Macky Sall. C'est le choix de la continuité. Justement, voilà. justement, je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre. Alors, comme le disait ce nouvel analyste politique, il me dit, mais écoute, il y a trois choses. Il y a les jeux, les enjeux, et encore les règles du jeu. Mais le président, il demande à l'Assemblée nationale, et c'est juste de régler les règles du jeu avec l'opposition. Et le président, lui, il est dans les enjeux. Il est hors de question pour le président qu'en 2021 beneen président ñëw pour réceptionner première barilu pétrole yi et que ci moom la ñu def découverte bi est-ce que c'est pas cela moo tax aujourd'hui il est en train de poser tout son poids pour ñu falaat ko. ci sa man su nga jox ma añ jox ma ndékki ndig ma reer ma gëm la. non non non mais mais quand même boo ma invité ma fanaan sa kër. Mhm. jox ma néeg jox ma clim ma tëdd nalaw. ma xëy nga jox ma ndékki bu baax. Mhm. midi bi nga dagal ma añ boo suur añ boo suur. Mhm. tak ataaya nan. nga di ma xaaral ngoon dana ñu reer. billahi ma gëm la. en si peu. en sept années. le président a fait d'énormes réalisation éducation. li mu ci def bëri na. mën naa leen ko du ma ko santé. Mhm. li mu si def bëri na. mën nañu infrastructure. Mhm. li mu si def bëri na. d'accord mais action sociale bu leen ko fàttee. Mhm. am na sénégalais yu nga xam ne xamuñu woon état. tey quarante quatre cent mille familles état mi ngi leen di soutenir. waxuma la couverture médicale universelle. nga feebar war a faju. état dugal ci loxoom fat la. monsieur le ministre. c'est des choses importantes may ma ah. ñëw fi ñuy waxee nii tey. le président est en train de réceptionner notre premier avion Boeing. mu war def Dakar Paris. d' accord war a def Dakar Europe Dakar état. mais en tout cas sama billet pour euh, prochainement su may dem. mais loolu mais loolu c' est une fierté xaaral rek c' est mm-hmm. nga wàcc si benn aéroport. gis sa avion dëkk sa drapeau dëkk. boo tàmmee tukki boo nee cëpp si aéroport gis ay dëkk yi ay dëkk yu ndaw ndawaan ay dëkk Afrique yoo xam ne seen i avion day Sénégal doo da lay metti ek booy ñëw Dakar tey nga ni cëpp ànd ak sa gan ngeen ànd wàcc Sénégal mhm. nga gis aéroport bi mhm. nga nga romb tuuti jam ñaajo ne ko xoolal jam ñaajo mhm. on l'a réalisé en sept ans jam ñaajo ay mbëtt ay guy ay tullu ñoo fa nekkoon aujourd'hui en sept ans jam ñaajo devient la deuxième capitale administrative moo mooy mooy li nga xamante ni opposition bi yëpp loolu lañ leen di taxé na way euh, seen bilan yëpp jam ñaajo la yem donc li ngeen waroon def ma euh, tuddal la feneen ah. man la dëkk démb laa jógee Tivaouane mhm. dugal sama dëkk bi nga xool dëkk ba namu changé macha allah macha allah mhm. nga wëlbatu ko dem Popenguine mhm. laajal catholique yi changement nga fa nga dem Kaolack changement nga dem Fatick changement. fépp foofu dem sur le plan religieux. Hmm. président am na lu muy jéem dans les cités religieuses. d' accord des réalisations yoo xamante ni ñu bëri aussi dañ koy taxané c' est des réalisations yoo xam ne c' est pour am gën a am doole politiquement parce que ñooñu dañuy joxe ordre et cetera moo tax tey. mais yow sa émission bi man nga taamu pour ma wax taa taamu woo sama xarit bi. taamu woo kële ci mbedd bi lu taamu. non c' parce que yow yaay honorable député parce que yow jàpp nga ne man hmm. émission dana am plus d'accord soo ma annoncé dana am ñu ma dana am ñu ma am na ko nga xam ne moo gën a pertinent ëpp ma xam-xam te doo jël eh, mais mais fàq maa ni jëli parce que dugg nañ bi def reportage suñu <laughs> hmm. teg brique tegaat brique raax peinture affaire donc je pense que loolu mooy li nga xamante ne nii hmm. il faut que nit ñi ko ndar xëy sotti yàlla sax adduna bi daf ko tabax ci juróom benn fan noppalu alors votre frère euh, rejoindre officiellement pour soutenir la candidature de euh, Idrissa Seck surprise la ci wala nekkul surprise. vous savez il assumera la paternité de son choix man du ma ko jugé. nga la moo ma itteel fi mu toll xam nga ko bu baax xam nga lu ma itteel. naka la président di gagné dès le premier tour. Mm-hmm. moo ma itteel. Mm-hmm. dès lors que jàpp naa ne moom ñëw ci ñun. le camp des gagneurs et des gagnants. Mm-hmm. jàpp na ne warul egsi fii. na dem ci camp wu losers yi. y a yoo xam ne c'est des losers éternels. mais qu'est-ce que vous appelez des losers non des gens qui xam nga dafa am ñoo xam dañu tàmm ñàkk. c'est-à-dire am lamb ja am na mbër yoo xam ne. bu arbitre ne privé rek nit ñi jàpp nañ ne woyaa yooyu la ñuy wax parce que dañu leen di neexaat ñuy teg ci suuf. alors da nga jàpp que ni Idrissa Seck donc mënul remplacer le président Macky Sall si boppam. xam na ne moom mënut a gagner président Macky Sall. te il le lui-même à boo demee ne ko kong kong kong président Idi oui est-ce que gëm nga ne yow di nga dem palais mu ne la mukk mais gëmu ko il n'y croit pas. comme l'appellent certains le phénomène politique. bi nga xamante ni yàggul bi mu ñëwee ma yëngal bu baax gaañ yi ñu gis ñaari discours yi nga xamante ni sénégalais yu bëri rafetlu wuñ ko Moustapha Cissé Lo def ko euh, Thérèse Faye également def ko ne moom bu ñu nekkoon président de la république Ousmane ko du bokk ci élection yi euh, façon yu nu mel euh, ndax jàppoo que ni day tax sénégalais yi gën a ñaaw njortu que ni vraiment yéen da ngeen ragal Ousmane Sonko. ragaluñu kenn tiituñu kenn xam président de la république lu mu wax. Hmm. jàmm ak ñun xam nga lu ñuy prévaloir faire prévaloir mm. la force de l'argument xam nga l'argument c'est quoi c'est notre bilan et notre programme c'est du concret que nous proposons aux Sénégalais mm. nous ne faisons pas prévaloir l'argument de la force parce que ñun ñoo yor suñ caq mm. bu ñu waree kolu pour caq bi kenn du ko jël nañ ko def bu ñu waree muuru nañ ko def bu ñu waree sangu nañ ko def président xuloolowul kenn xeexalul kenn recruté wulowul kenn ay gros baraaki nervi parce que c'est ñun ñoo war a rassurer les sénégalais gis nga réew mi jàmm ak salaam ma fi am incha allah le février nit ñi nañ xëy ndekki ba suur xëy dem liggéeyi férié sax du am parce que Sénégal noonu la tëddee fii ñëpp a bokk ndeeg baay da ngay dugg si kër kii nekk opposition kii nekk majorité c'est pas c'est quoi le problème ah, d'accord mais ñun en tout cas mosu leen président dans son discours mu am de la violence en sept ans saagawul xasul c'est pas aujourd'hui qu'il va le faire et bu commencé mais aussi c'est un président qui rassure. <laughs> d'accord puisque puisque yow ministre nga ci wetam donc mun nga ci wax lu bëri alors ñu ngi ci dernière étape bu émission bi presque mu jeex euh, tey question bi nga xamante ni dañu koy laaj mooy euh, dañu constater que ni dans les réseaux sociaux euh, les politiciens dañuy fil euh, les internautes ay fake news yu bëri. Euh, portant soit ci euh, ñoom li ñuy def wala portant ci euh, opposant bi nga xamante ni dañ ko bëgg di lii souvent di ñu ko jiiñ ah quand je di ñu ko jiiñ di ko jiiñ surtout la presse en ligne fake news yi nga xamante ni source bi politiciens yi la lan nga ci mën a wax. la presse doit être Une source. C'est pourquoi moi je une, pose une, la question. Une source doit faire l'objet de filtres à trois niveaux. C'est un principe élémentaire. D'accord. Mais xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw c'est-à-dire bu mhm. jox ay fake news ngeen koy jàllale. non dama ne non non non mais les réseaux sociaux mais même y a une nouvelle loi pour mettre de l'ordre sur ça. Mhm. mais fake news li ci ëpp c'est dans la presse qu'on voit ça la presse en ligne. la presse écrite. Non, mais souvent. Ah oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Aussi bien nous autres de l'administration, am na loi bu bees qui est en train d'être mise en œuvre, mais également de l'autre côté ñi nga xamante ne nii aussi mais ñooy absorbé de fake news. waaw mais moo tax ma ne fake ah. news yi si je ne dis pas presse en ligne bi parce que quand je dis réseaux sociaux mooy que ni outil bi ñun ñëpp Facebook ñun ñëpp ñoo am accès donc plateforme nit la bu ñu utiliser ñun pour promouvoir journaux mais fake news yi ci ëpp politiciens yi ñoom ñoo koy dans les réseaux sociaux alors ban responsabilité et donc ngeen war a ban taxawaay ngeen war a mën a am ba nga xamante di ngeen freiner les fake news yi nga xamante ni di filer dans les réseaux a une mettre de l'ordre sur, sur tout ça. il faudra vous y intéresser. yéen votre métier. ngeen xool bu baax loolu nu ngeen koy jàppale nguur gi parce que nguur gi mënul ta def lépp. Mhm. le le président ne peut pas mettre un policier et un gendarme derrière chaque clavier c'est pas mhm. possible. d'accord c'est pas possible et puis les les smart euh, les voilà les téléphones mais. ça va très vite. ça va ça va très très vite. non non non mhm. mais mais même si on vous file des fake news il vous appartient à vous. de les analyser, de faire la vérification nécessaire. Oui, le traitement de l'information, voilà, comme le on le fait d'habitude. Trilogique. Voilà. il faudra que ces trois étapes soient. mais par contre sama profil Facebook euh, information yi ci daw yëpp nekkul man donc man mën naa ko lire te du ma ko traité man si sama sama sama journal mais euh, par contre information bi day law donc sénégalais yi dañ koy waxtaanee. je je prends un exemple dëkku buzz la. waaw je prends un exemple jabaru Mame Mbaye Niang. faux jabar supposé waaw supposé jabaru Mame Mbaye Niang. c'est des choses qui ne méritent pas de c'est des fake news nga xamante ni c'est parce que dafa am yoo xam ne. nit ku sensé xam nga ne lii mënta ne. je suis d' voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi fake news yu nga xamante ni yàgg nañ ko gis si réseaux sociaux yeeg ci ci politiciens yi comme ñu jéem ci ba nga xam ne il faut gën a euh, gën a gën a am responsabilité am maturité ah, voilà am maturité xam c' est quoi donc euh, l' lan mooy importance internet comme ñi ko ñu bëri di ko defee ba di ci développe lu bëree bari mu nekk économie bu nga xamante ni c' est énorme mu créer emploi yu bëri alors monsieur le ministre ñu ngi si cappaandawu émission bi ban appel ngay conseiller à la jeunesse sénégalaise ces élections yi. d'abord gërëm leen ci opportunité bi ngeen ma may. ma wax ak askanu Sénégal ak àdduna. xamal leen ne ñu ngi jëm le 24 février le 25 day am le 26 am le 27 le 28. Hmm. Sénégal day continuer le Sénégal va au-delà de ces élections qui ne sont qu'une étape. Hmm. de notre démocratie. Hmm. parce que le Sénégal a commencé à voter bien avant. l'indépendance. nañu xam amoon nañ cette culture d'élection. d'accord élection dana am xam nga lan lay doon man la. d'accord nga ànd ak man waaw d'accord oo ànd ak man bu ànd ak man pataas sama gënal ñambi jarul xeex jarul te xuloo lekkal sa ñambi ma yëy sama pataas bu ñu paree ku nekk jël sa soccu euh. daal di soccu mu jeex tàkk le président leur propose le meilleur programme parce que ñi fiy wax ñëpp euh. kenn génnee la gu fi programme ils sont en juste de faire des contre programme ils copient ils collent président nee na CMU. bon nous on va proposer par exemple PMU. président nee na euh, lii ñun un propose la en tout cas dama bëgg wax ak jeunes yi surtout. Mm-hmm. bu leen kenn këf. bu leen kenn dugal ci ay wax yu bëri. Mm-hmm. un un pays ne se gère pas par la par parlotte. Mm-hmm. un homme d'État se mesure à l'aune de ses déclarations. man boo ma waxee benn mu dañ démb dama seetaan maître Madické Niang. parce que bi Ousmane Sonko di wax ne. député yi jot nañu 10 million dafa ne Madické Niang fekke na fi ñu ko doon waxee Madické Niang a dit hier à la télé que musu ko fekke c' grave nga bëgg yore réew jàpp ne war nga ko mën a yor sur des fake news. mooy li nga wax ah, a été comme une traînée de poudre ñun ñu nekkoon ay député sortant suñu jabar foog ne encaissé nañ 10 millions. nga wëlbatiku ne député yi fay impôt mu wóor ne député amul kenn kuy liggéey ku impôt am di jaar ci loxom l'impôt est retenu à la source donc voilà des déclarations yoo xam ne c'est pour dofloo yéen ñenn ñi xëcc ci jeunes yi xamal non non lii la lii la mais c'est des gens yoo xam ne amuñu sax euh, amuñu sax cette contenance cette allure d'un nom d'État parce que n'est pas homme d'État qui veut c'est une posture c'est un vécu da nga koy dund ay ati ati at am ci expérience am ci expertise mais xëy nii rek parce que lan simplement yow tu avais dit que tu vas arrêter d'être fonctionnaire nga xëy tu tu tu attaques l'État pour pour que la sanctionner que tu te victimises kenn du yore réew sur la base d'une victimisation. un pays semi-sérieux président Macky Sall réussir na moo mës a dégg président Macky Sall attaqué. le président Abdoulaye Wade. waaw dama lay laaj rek non journaliste nga journaliste est-ce que mës nga gis comme attaque yi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi koy mais voilà parce que simplement. Mm. bañ ko bëggee génne assemblée génn na. dem wuti. waaw d'accord yàlla may ko. ban discours la doon tenir sa su dem. ban discours la doon tenir. il revenait sur les principes. dama lay wax ben affaire. et ça c'est un appel que je lance à tous les hommes politiques. Mm. nañuy def opposition de programme. Mm. te bàyyi opposition de personne. parce def àdduna dafa tëradi. <laughs> d'accord émission bi mu àdduna moo tëradi. <laughs> mais non yow doo lii def ah. président proposé na lii. moi je propose ça. wala programme bi gis naa si telle insuffisance. c'est ça. mais mais Sonko proposé na fi solution livre bi wax ci lu bëri donc vision am lu mu gisee Sénégal ak euh, voilà li mu bëgg li mu xalaat et tout ça je pas des solutions ouais, c'est des évolutions parce que c'est du c'est plagiat du ma ci revenir. Euh, ñun daal ñu ngi ak suñu PSE plan Sénégal émergent ah, ah. à l'horizon 2035 qui nous permet nous autres jeunes de cette génération d'espérer que le Sénégal aura droit de citer dans quelques mois. incha allah na gaa yi jëlee nag seen carte électeur dem voté ji. <laughs> mais buñ ci fekk. photo photo jigéen wala <laughs> beneen tur bu dul seen bos. c' très important loolu aussi euh, il faut que gaa yi liggéey ci bu baax mbokk yi xarit yi li lañ tey seen question politique de ma localité doon dalal honorable député monsieur le ministre Sator Mbaye mi nga xamante ni dafa bokk également ci bureau politique bu AFP. ñu fekk ko également fii seen siège ñuy waajal seen réunion amaana ci kanam ñoom ñu ngi waxtaanee politique. ndax balaa ngay dem il faut nga jël photo <laughs> président Moussa Ba Niass léegi mu incha allah ñu ñun fii la yem ci émission bi léegi dinañ dox dig daje beneen yoon ak beneen invité bu ñuy waxtaanee politique Sénégal jërë ngeen jëf. Sunugal 24 point net soyez le sunugal24.net soyez le premier à informer sport société actualité politique culturelle reportage interview l'information à sa juste valeur c'est ici même sunugal24.net sunugal24.net soyez le premier à informer